laaj la ma am sens lu am sens nga wax motax artiste yi ku ci tollu même ku du artiste bo ci tollu ci digg ndaw defal li ngay def pour boobu magge mën réussir quoi amna na xam ne fa tollu rek bo fa tolloo defuloo ko boo fa tolloo bo fa bu ko passé ya, do ko mën a def xam nga lu ma bëgg expliquer nit sa digg doole ngay liggéey sa liggéey man sama digg doole bi ni ci lay nek ci jaay sama cd nek ci per marché yi nek ci station yi nek ci bureau yi di jaay yalla may ma li ma bëgg waye duma dem ba am way kenn soxlotuma nak ma nek lebih walu bi di waya nak ken xam lu ko def kon mu delu sa walu ge bay amna tol nga def mm-hmm. d'accord oui euh, leneen li nga tam ko en tant que yow nga théâtre mm. théâtre sénégalais jamono ah, ah, ah, en tout cas pëccoxoo na de mm. xam nga ah jeex na ni politique bi yeneen na trop quoi pëccoxoo na trop donc ku nek yaa def li nga man non nan rek yalla mom baax na quoi mm-hmm. ku nekk yaa ngi def man suma ma su ma su ma rek damay jum quoi dëgg laay wax mm-hmm. man ñi ma ñi ma dëkkal sax bu ne bu bu ma déggee wax série xanaa daan ma sikk parce que man du ma sitaan série lu bare mm-hmm. xanaa ma tombe si dama tombe si wala samay doom samay jabar di sitaan yooyu ma tombe si ñëw maa ngi si leen quoi parce que man dëgg laa lay wax dinaa saan benn benn série mais lu ma sentir du ma la xool quoi daf may tardeel am na yoo xam ne du ma xamul sax nu mel damay dégg tur rek mais xamul mu jeex tàkk parce que ma ko quoi. xam nag non am na dégg lu ma yëpp quoi mais na benn benn yoo xam ne yi na yoo xam ne sentir ma ko ma ko seetaan am na du ma ko yëg daal mooy seetaan du ma yëg ni kii maa ngi seetaan li ma neex na ma quoi waaw waaw si man boog si man mm. dafa des dafa des dafa des non dafa des dafa des xam nga am na film yoo xam ne tey li ma si jot a si day mel na rek yi su tubaab bi film tubaab bi li mu fi indiwaat mm. di ko joué olof di ko mm. incarné comme ni ko tubaab bi incarné n'est-ce pas loolu la quoi folaal bu mu expliqué quoi ni mu dafa bon mais man maa ko dul sentir quoi man maa ko sentir quoi mais am na yoo xam nag dama koy sentir léeg-léeg ko ci tànn ci benn est-ce que bëgg nga film boo ne wala série boo xam ne yow neex la dañ koy neex na la. non non parce que euh, am na des fois damay damay sentir damay sentir mbetteel. mbetteel dama mais tout le temps quoi mais des fois parce que damay xam ne ñi koy jouer ay artistes lañu. xool nii rek man li leen non ah, non non yow tam bi ak façon acteur bi nu muy surtout acteur bi E, soleil là-bas dama daan xool seen bu njëkk bi mu tudd wiri wiri ma si tombé mas naa ko wax si benn interview sax sama doom may si am yàgg sama doom ni ma soso ak kan safa ni ma soso ak euh, keneen ki mu tudd euh, alaaji mhm. seexu naa ni ma koo si faral ma ne ko faral ma kenn xam nga ñoom xam fu ñuy far ji mhm. far ma ne ko man saa neex laa faral mhm. loolu ko wax saa neex te non c'est-à-dire que tax moo ko sax parce que dama doon gis ni ñuy joué saa neex film bi lu rëy yëpp lu muy yëpp laa wax ak li mu si kii yëpp saa neex dama xool ku nekk ci dëgër lay àndal mm-hmm. boo ko waxee dëgg wala mu gis ku nekk ci dëgg moom lay àndal mm-hmm. xam nga xam nga li ma la expliqué mu déet mm-hmm. ku nekk ci dëgg lay àndal même doom ji mu dee xam ne lu ko bañ bañ boo xamee ni doom ci dëggal nekk mu ànd doom ji foofu laa ko doon waxee moom ko amee xam naa ne moom comprendrewul moom ko ay waxu kii lay kii man yooyu ne ma si yooyu man euh, role bi am kon ma ne benn séquence bi ma si gën a neex bi si gën a neex mooy bi mbay doosee bañ koy annoncé nekk que yàgg suusu yéen a bokk benn ndey bi mbay doose jógee noonu lii mu jaar si bunt bi mu jóg non gis des fois nañu xool li ñuy joué dafa jóg mu bëkk taabal ji lii mu jaar si dafa bëkk taabal ji mais ni mu ko joué moo rafet quoi euh, donc euh, am na yu may si daan même yeneen sax léeg mu am tombe si yeneen série yi mais daal nañu gën a góorgóorlu daal nañu gën a góor góorgóorlu parce que aar du fo aar kenn du ko foyee man na ma tere na ma tere man lu ma nama mooy mu bu baax ah rôle bu baax ak xaalis.